salaamaaleykum internet bpactu point com ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalalaat jàmm ci seen revue de presse tey lundi 6 janvier 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéene ma ci ànd ak njaayaan bi Amina maa ngi lay siyaare siyaar naa la Omar di siyaat képp koo xamante ni yaa ngi ñu suivre saa su nekk te di leen dalalaat jàmm ci seen xibaaru revue de presse ñu ko ubbee ak journal bu l'observateur mu xëy di àddu ci rapprochement bi am ci diggante i Sall ak Idrissa Seck waaye am na ku ci yëkkati ay kàddoom kuy wuyu ci Cheikh Yérim sekk nag nee na Idrissa Seck waxul dara wala wax na ak Macky ba d'accord ci wii ak noonu. loolu la journalu l'observateur xëy fësal diggante Macky ak Idi daal dafa mel ni joxante nañu loxo bokk ci mel ni kii nii di Cheikh Yérim Seck yëkkati na ay kàddoom di wax ni déggu ci waaw déggu ci déet mais lu ci mënti am daal jàpp na ni rapprochement am na seen diggante te Macky Sall sax dafa mel ni Idi la bëgg tey jii bu fi jóge woon Idi wutu ko parce que moom la gën a jubóol ci opposant yi. ndaxte ci week-end ñu génn. Euh, clin d'œil amoon na suñu président moom moo ko def ci réew mi mbirum set setal boo xoolee wala boo seetloo ndakaaru amee naa set na wicc li ko waral nag mooy njiitu réew mi moom moo wàcc boppam sur le terrain ànd ak soxnaam ànd ak waa APR ñuy set setal ndakaaru bari na ay quartier yoo xamante ne set na bu ci mel ni ñaari tali aw nañu fa def lu am solo ginnaaw ba mu lancé programme bi Sénégal zéro déchet en deux mille vingt dafa mel ni nag commencé na ko ci début deux mille vingt bii ni ñu nekk kii nii di suñu njiitum réew génn na ci tali bi moom ak waa ko ñoom yëpp di baleel boppam sol na jógi moom bu baax dafa mel ni suñu njiitum réew moom mi ngi en forme ba tax na nag ci biir bale boobu noonu gis nañ ci benn affaire boo xamante ni c'est marquant ku ci mel ni benn buju woman maanaam buju man bu jigéen daal boo xamante ni ci mbedd mi la daan tëdd dem na nag ba commencé nekk daw dawalkatu oto camion bu nga xamante ni moom mooy def mbalit yi mu nekk loo xamante ni nag c'est marquant Omar waaye polémique bi nga xamante ne ni mi ngi ci biir douane bi muy benn décision administrative ki fa waroon a jóge wala ki fa nekkoon ñuy wax waxu dafay jóge du fa jóge mu fàllu toll ci 68 wala mu jël 68 mesures Amina gars yi naan yoon la ñu neen du yoon ñoo ko gisandoo Omar ci wàllum duwaan ki nga xamante ni moo fa nekkoon DG doon wuyoo ci turu Oumar Diallo dañ ko fa waroon a jëlee nommé ki nga xamante ni moo di Abdourahmane Dieye moom nag ñaari fan avant muy jógee ci postam dem retrait dafa jël 68 agents daal di leen di yóbbu feneen mu nekk loo xamante ni nag yéen a coow bu bari ba tax na am na ñu naan am na ci droit mais am na ñeneen ñoo xamante ni nee nañu amuñu ci droit ba tax na nag suñu naatango yi nga xamante ni ñoo nekk ci journal l'Observateur dem nañu seeti ñi nga xamante ni ñoom na seen xel màcc ci wàllum justice ñoom nag nee ñu am na ci droit parce que dañ koo nommé clé par décret mais taxagul nekk officiellement li nga xamante ni moo di directeur euh, douane. noonu la demee waaye ba tey ci journal bu l'Observateur kawteef am na ca Mbour kawteef googu nga xamante ne nii moom moo fa amoon assassinat de Ndiaye Ndiaye Gueye xale boobu amoon deux ans. fi mu toll nii nag amee naa révélation yi jugaat na. xale boo xamante ni tollu lu dul ci ñaari at xamagul lu baax xamagul lu bon ñu jël ko daggate ko daal di koy suul ci benn appartement boo xamante ni pareegul mu nekk loo xamante ni nag metti na waa Mbour ñoom ñëpp ñoo ngi koy coow fan yii yëpp mais nag am na kenn koo xamante ni mi ngi ci doon def témoignage ci biir police ba jamono jii nag dafa mel ni dañ koo jàpp ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci ñaawteef boobu ba pare sax nee xale bi avant ñu koy rey dañ ko violé woon Omar. te Thiès. ku jigéen la koo xamante ni da doon accouché ñaari seex suñu borom daal di cay jël bakkanam mu nekk loo xamante ni lu daw yaram la. liñ naan yàlla rek mën waneeti na ko fële na le ci ceeskaay benn dëkk ñaari gaar ndaw soo xamante ni ëmb na ba accouché am ñaari seex comme ni ko ñëpp jigéen ñëpp di ñaanee yàlla may ko ñaari seex laataa ñu koy évacuer ci biir ambulance bi mu ñàkk bakkanam mu nekk loo xamante ni nag triste na trop ñu koy jaale ay mbokkam di ko ñaanal yàlla rek fa mu jëm gënal ko fi mu jugee te ñu jàll nag ci journal bu stade comme ni mu koy amalee moom tamit sport rek ci lay wax ci lay dox moo tax mu nu ñu ballon d'or africain 2019 suba lañ koy joxe incha allahu rabbi mardi 7 janvier wala ci Égypte ñu am ci njort bu rafet que ni suñu fierte moom moo koy jël muy saajo Mané. depuis 18 ans Sénégal amuñu ballon d'or africain ci El Hadj Diouf la gëjee ba léegi bu ñu ko gisaatee ci Sadio Mané dañu koy sargal. dañu koy tasagal dañuy ànd ak moom ci feet wi moo tax ñu ngi koy sax waajal Amina benn teeru bu rëy rëy rëy ci réew mi comme ni nga ko gisee rek lépp loo xamante ni waa génération 2000 defoon nañ ko fi mi ñoom Henri Camara ay ñoom El Hadj Diouf nga xamante ni moom moo ko jëloon 2001 ak 2002 dafa mel ni nag Sadio Mané moom moo dekkalaat cosaan fa séenee taxawaat taxawaayu Lions yu 2000 yooyu noonu ba tax na nag ballon d'or africain bi nga xamante ni ñoo ngi ko war a joxe le 7 janvier fële na la ci Égypte ñu am njoxtu gu rafet que ni suñu bambali bi moom moo koy jël Sadio Mané ginnaaw loolu nag dafa mel ni dencal nañ ko cadeau boo xamante ni c'est explosif fii nii ci Sénégal Sénégal dinañ ko defal benn accueil boo xamante ni mësuñu koo gis ci àdduna fan lay xewee fële na la ci musée des civilisations noires ba ko ci mel ni nag mataax Ba mi nga xamante ni moom mooy ministre du sport am na njort bu rafet que ni Sénégal ñëpp dinañu génn accueillir ki nga xamante ni moo di Sadio Mané soit mu jël ko ak mu ñàkk ko jël yëpp Sadio Mané dinañ ko accueillir ci Sénégal ni ñuy accueillir roi. weekend bi ñu génn amee naa comme ni ñu ko doon tuddee weekend des bi tamit dañu ko tuddee weekend des lions Diao Baldé Keita def na lu am am solo fële nga xamante ne mooy ko waaye kenn du mel ni mi nga xamante ne Amina moom moo sauvé équipe di ren. dafa mel ni li kenn bi kenn des Lions ñoom ñaar ñoo ci fës. Keita Baldé mi nga xamante ni yóbbu na Monaco 16e de finale ak Mendy mi nga xamante ni sauvé na euh, waa Rennes mu nekk nag loo xamante ni du ñu parce que sénégalais yàq nañoo sauvé club français. ba tey rek ñu dem ci journal bu record journal bu deux en un bi parfois sax ma yokku ne quatre en parce que du wax ci football kese day wax ci làmb wax ci basket wax ci handball wax ci yu bari moo tax nag mu ñëw ci CAF or Ballon d'Or 2019 bi ba tey ci la ñuy des ndax suba la ñu koy joxe ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ci absenté. ku ci mel ni Mohamed Salah du ñëw ku ci mel ni Mahrez du ñëw yaakaar naa ni nag euh, cin la nag bu nar a neex bu baxee rek day xeeñ Amina. trio bi nga xamante ni ñëpp dañ leen doon xaar ñu taxaw sur scène ñu wax ni kii mooy gagné Ballon door bi mu waroon dox ci diggante Sadio Mané Salo ak Mbahrez ñoom ñett nag dafa mel ni Sadio Mané dong moo fa nar a teew ndax ku ci mel ni Mohamed Salo moom boycotté na li nga xamante ni moo di cérémonie bi maanaam daal gedd ko du fa teg tànkam jàpp na ni daal budul moom mun fa ñëw du teg tànkam mooy moom pharaon de l'Égypte bi ku ci mel ni Mahrez moom tamit dafa mel ni du fa teew ba lu ci mënti am daal jàpp ni Sadio Mané bu dee njiglaayam la na ko jël parce que battre waat na trop fort jëmale ko ci première ligue bi moom moo nekk seul africain bi nga xamante ni moo bokk ci dix buteurs de la décennie. Diao Baldé Keita mi nga xamante ne moom itam suñu fierté la suñu doomu réew la yóbbu na ba mu fële ci seizième Amina. ñoo ko gisandoo Diao Baldé yóbbu na waa Monaco seizième de finale ginnaaw ba mu doon tasante keroog ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Reims yi moom nag moo ci marqué deux buts deux buts la marqué deux buts yi nag moom moo leen permettre ñu dem seizième de finale parce que seen adversaires yi jotoon nañ leen a dugal benn but ba pare. waaye Issa Laye Diop mi nga xamante ne ni moom mooy président douzième gaynde yi Amina mi ngi ci journal bi. xam naa ni nag accueil bi lay waxtaan ak gars yi. waaw ba tey ci accueil bi nga xamante ne ñëpp ñoo ngi koy waajal ñu war koo defal Sadio Mané mi nga xamante ni moom moo jël drapeau Sénégal yóbbu ko fu nekk sigil ko fu nekk moom nag accueil bi ñu koy waajal ku ci mel ni Issa Laye Diop président douzième Gaïndé moom nag nee na dina ñëw rek ànd ak mouvement am taxaw fa seenee teeru ki nga xamante ni moo di Sadio Mané. mi nga xamante ne mi ngi waajal combat am ak Ama Baldé moo tax journal bi fësal ko ci ginnaaw moom. Euh, Modou Lo dafa mel ni suñu naataango yi nekk ci journalu record demoon nañu seeti ko ginnaaw loolu nag dañ koy laaj ba mu seeti jee kii nii di lim ne ko laaj ci prison bu lan la fa jëlee ba xam combat bi dina am am du am moom nag nee na du yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci combat bi mais daal jàpp na benn affaire ni amul benn promoteur boo xamante ni mën nga remplacer lim ne ko laaj ci biir arène bi deful lu di ko ñaanal mu génn nag jàmm ñu mën a continuer bépp mbébét boo xamante ni amoon na ko ci saison bi. ba tey ci journal bu. suñu làmb mooy journalu consommé local mu ñëwaat ci le four de Pikine Eumeu Sène dof du wér day tane rek tay shinga Eumeu Sène l'ex roi des arènes moom nag Amina fi mu toll nii yëkkati na ay kaddu yi nga xamante ne ni jàpp nañ ni loolu mooy li sës maanaam dër bi Pikine waa Pikine ak Guédiawaye banlieue rek la ba tey Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang Eumeu Sène daan na Balla Gaye numéro 2 ñaari yoon bëgg naa ngémb rakkam pour mu jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2 liñ naan tepp tepp moo gën yuréet ëmma seen bopp ba tey waxul woon nag wax ju bari mais yëkkati na ay kàddoom di ko jëmal ci combat bi nga xamante ni moo war a dox ci diggante Boy Niang 2 ak Balla Gaye moom daal jàpp ne ñaar ñooñu dañoo war a mën ngemb rek dugg ci biir arène bi bëre parce que seen combat lu ñëpp di xaar la ak lu ci mënti am daal combat boobu nga xamante ni moom la bokk ndax ragal féete day xañ wër sax moom nee na ci Boy Niang 2 la far te lépp loo xamante ni combat bi jaral na ko rek dina ko def pour mu daan ki nga xamante ni moo di Balla Gaye Tigre numéro 2 wax na ci Bombardier nee na ñun ñooy ay adversaire waaw loolu la fësal de nee na Tapha Tine Lac de Guiers 2 ñooy ay adversaire am te bépp promoteur boo xamante ni tëgg na ko am ci ñett ñooñu rek dina taxaw bëre ko parce que moom am seen ndawul yotaa. waaye Amina diggante Sénégal ak Gambie yaakaar naa ni benn réew la dëkk la boo xamante ne nii dañu naan ñaari réew la rek waaye benn réew la ba tax na Baye Mandione demoon na fa ngir bëre ak ki nga xamante ne ni mooy xoyandaan. daggal sawee wee ak duma dagg sawee moo tax combat boobu amul ba tax na waat bi dañoo dàq ma Mandione ci seen réew ñu ko dootoo fi bëre waaye amee naa tontu du forox ndax ma Mandione ne na moom moo njëkk a gedd bi Euh, combat boobu nga xamante ni le jeune promoteur moo ko tëggoon jamaïcain jamaïcain nekk doomu Gambie nekk doomu Sénégal jëloon komba combat boo xamante ni am importance nii bari coow nii mu jël ko yóbbu ko Gambie ngir lan gën a jubóole pays yi gën a dox jàmm mais nag combat bi dafa mel ni mujjeewul jeexe jàmm ci diggante xoyantaan ak ma Mandione ginnaaw Baye Mandione ba mu taxawee ci digg géew gi ñu naan ko daggal say we mu nit amul we ba nit ñu jëlee verdict bi jox ko xoyantaan fële na la ci Gambie boobu ba tey nag coow li bari woon na mais ginnaaw ba waa CNG bu Gambie toogee waxtaan seen biir ñoom daal nee nañu Baye Mandione dootul amati combat ci biir Gambie mu nekk loo xamante ni moom nag tardewul benn yoon ci réplique bi parce que xamal na leen même bu ngeen ko waxul woon sax man maa pare woon di bëre ci seen réew parce que xamoon naa avant may ñëw que ni combat bi da koy jël victoire bi ngeen jox ko xoyantaan yaakaar naa ni li ñu indi woon lépp ci journal bi te ñu war ko woon wax wax nañu ko. waaw dafa mel ni ñu yi loolu lañu leen indiloon ci seen xibaaru revue de presse yi di leen ñaanal jàmm ju sax dakk nag gudd fan ak wér yaram ak lépp lu ngeen bëgg rek bon bonne journée di la jaajëfal yow Omar mi may ciy àndal saa su